يا ربنا يا ربنا فكلنا لنا وجعل من لا يزال قوتي وحولي قصيدتي فاقت قصايد الكرام ولتخوض أبدا خير المرام عديتي مبدلة كل مليك كان مناسبا واغصاه المليك ما توجه النصارى الله ليه بلا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم يقول أحمد الأمين بن خديم خير لنا امين أحمد العبد الكريم حمدا لربي يا الرحمن من جاء بالإسلام والإيمان من فضله في المرسلين سبتا وبكتابه نزيد الخلقتا وعليه للتقى وصحبه وكل من خد من البكير إلى رحمن خالقنا بسور القرآن بدأت بالفاتحة المعجمة وشهرة بقرة مكرمة آه، رضي الله عنه نيغي نك تاي غوي مبند في تي كير سيغ ابو مديان مباكي bis bi nga xam ni mooy bisu màggal gi ñuy tuddee màggalu baatin di ko ziyaare di taas ci barkeem di ñaan yàlla yokk leeram te taasuñ ci barkeem nu ànd ko njabootu Serigne Touba gépp njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara njabootu Serigne Touba fépp e ci waxtu wi nag ñuy jëlee kàddu gi ci la ñu dolliku tawféex muy egsi e, kenn ci njabootu Serigne tubaa waaye Serigne bi sédd ko liggéey bu rëy muy Serigne Habibou Mbacké ibnu Cheikh Maodou Fadal Mbacké mu Serigne Touba Khadim Rasoul mu yegg si njabootam yegg ci këram nu di ko siyaare Eh, di barkeelu ci tànkam yi tedd yi mu ñëw ngir ah, dox ak bokk eh, jokk yitam ak kóllëre itam nga xam ni eh, lu yàgg la diggante Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ak Cheikh dul Fadal Mbacké mu yegg si nag gis nga mu ngi nii toog den ak Serigne Abdou Aziz Abo Madiana mi nga xam ne tey mooy jëmmi Serigne Abo moo moo ko fi wuutu yàlla na fi yàgg lool te wér te yeggaleel ko ay naalam fekk nañ fi bokkam yu yaax yëpp sëriñ Cheikh Marème mu sëriñ Abdou Karim mu sëriñ Baara mu ngi ni toog sëriñ Khadim Mbacke itam mu sëriñ Abdou Karim mu sëriñ Baara mi ngi ni toog mi ngi dend ak mbokkam Mamadou Bassirou Mbacke jaxate mu soxna bu Mbacke mi nga xam ne moo topp sëriñ Abou Madiana Mbacke ak ñun bokki taalibe yëpp sëriñ bi ñu di la siyaare bu baax nag di bég ci egsi gi nag di sant yàlla bi nga xam ne moo nu ko baaxee ndax dafay mel ni rek lii dikk gi la laqaaha illa su'azin asi Mbacke ah, waaw sëñ bi nee na mi ngi siyaare bu baax a baax ne mi ngi nuyu bokkam yi mu fi fekk yépp mi ngi siyaare bokkam yi ci bis bu mag bii nga xam ne ñoo ko bokk ñun ñëpp ne luñ ci wax seen sunu bopp lañ ko waxal ndax bis bi ci tax bis bii am bu amutoon kenn du ci am ñun ñëpp te kooku mooy sëñ Tuubaa rekk moo waral bis bii kon daanaka luñ ci wax amut luñ ci ci sant amut lu ñu wax ci ñom sunu bop lañ ko waxal li ñu war da bari lol li ñu boole da bari li ci ëpp solo rek moy sëñ Touba waye ku ne xam na diggante bi ak Cheikh mohamed Fadal ñu bokk lepp ni nekk xarit ne moom Serigne Abibou mi ngi yoré lettre bo xamni ci li Serigne fallu bayiwon ci la bokkon Serigne Bara bindu koko Tampoo la ca def Mbacke Kajoor def ci Serigne Baara Mbacke Mara bu ci Mbacke Kajoor mi ngi ko daté woon le 7 juillet 27 juillet 1928 laa gis loolu sëñ Baara date ko bind ko Serigne Fallou ci Mbacke Kajoor daa ko Serigne Baara bindee maa ngi ko amee mu bind ko Cheikh Maodo Fadal Mbacke loolu kon lu yàgg la. Sering abi bu ne kon bu ñëwee fi ci kër serigne abo kër serigne bara yi néna serigne abdou assis mi suñu dooma way suñu xarita no bokkoon ni daara ne kokki itam <laughs> ndaje nañu ca kokki dara loolu lu yagg la ne kon ñi ngi sant yalla way serigne abdou assis ñi ngi lay ñaanal yalla ne serigne bi ne yalla na la fi yalla bàyyi lu nga sut say way aw fan li nu yéene woon tàmbali ak liñ tàmbali te defuñu yàlla na nga ko def yàlla nga àgg fa nga jëm àgg jafe waa yàlla nga àgg ni koy ñaanal bokkam yi mu fekk yépp ne man mii nag bisu sëriñ abo bisu sëriñ baara dama ñëw sàkku si ci ñaan man sëriñ abibu mbakki neel waaye gàtt gàttum xel wala nga gàtti jéego waaye dégg nga ni Serigne Bara faj aajo moo ci gën a gaaw lu mu wax boroomam mu ni waaw day fal di fol ci lu gaaw mat naa ragal ci xarnu bi nee loolu moom sëñ Moussa Kaaku wax ci Serigne Bara te loola noonu la amee nee wàlli la woon mu ni fàng moom Cheikh Malamine Bara sa way jur da sëñ Abou Madiana doon nat loola loolu ñun ñëpp xam nañ kenn nattabli wu yow it kasaalika rek noona rek garab gu ne lañ fa gajee mooy jebbe war ca garab googee yàlla bu la cat jiitu tey nag dikk naa fi fii tey damaa ñëw ma man a sëriñ Abibu Mbakke tàllal samay lox di ñaan sa borom njëggal lii ma tax bëgg njëggal moo ma indi kay ndax kat kër gi borom muy sëñ Abo moo ko tudde woon daarul maxfira kërug jéggalaakoon yàlla nag rus naa maye dara di ko nanguwaat def fu mu def dara bañ xam ne def na ko fa sun borom du ko fa jële mukk kon sëñ bi man man sëriñ Abi bu ñëw naa fii dugg fi ñaan fi njëggal googee bu ma génnee fii ku ma taseel kook kum taseel kum taseelaat kooka yéen nañ jëggal ñëpp lépp xaj na ci mbakki amin amin loo loola ma tax a ñëw kon ku fi teew yàlla na la yàlla jëggal Yalla nu yalla defal fajuk aajo def nu nak deug deug talibi Serigne Bamba yalla bu dara sun dara yalla bu ngeen Serigne Touba nañu tambale ci Cheikhul Khadim yam ci Cheikhul Khadim man nak ma ngi fedd li kóllëre bu baax man Serigne Habib Serigne Cheikh Marema Mbacké ma ngi lay nuyu bu baax Serigne Khadim ma ngi lay nuyu bu baax ak Serigne Basirou jaxati maa ngi lay nuyu bok yi fi tew yi ci biir ak yi ci biti yeb man ci Habibou Mbacké ma ngi len di nuyu bu baax. sama kóllëre gi nu bokk gi nu yàlla boole maa ngi koy feddali yàlla nanu sunu boroom doole dimbali ba yàlla bu dara yàqu ci ñun yàlla nañ defaru ñun ñëpp yàlla nañ jafal jofal ñun ñëpp yàlla nañ jofal jofal lu jafe la ndax dangay bañ a ruural doo réer doo ruural dangay ngay reggal màndal jafal jofal yàlla nañ ko yàlla defal amiin Mbàkke amin amin ya rabbal alamin ñëw naa nee na ñëw naa ci daarul maxfira nee na sëñ Abdou Aziz nee na eh, yaa ko sañ yaa ko sañ a wax yaa ko moom nee na jëmm ji fii tey daal yaa fi sëñ waaye moom it nee ñëw na rek nee ñu ngi lay sant nee nag boo ko bëggee rat loolu sëñ bi boo ko wax dangay ngay xëcc doom ja teg ca peg ba sant sëñ Abdou Aziz ne mi ngi sant bu baax. ne boo waxee ba noppi Mbàkke. te teguñu ci dara. te teguñu ci dara. te image day wax. te image day wax. ñi fekkiwul jataay bi. ñi fekkiwul jataay bi te xool band bii. mën nañoo demee seen xel. mën nañoo demee seen xel. te lam leen jox du noonu. te lam leen jox mën naa bañ a doon loola. tax may wax. loolu rek tax may wax. waaye ñun ñii fi teew. nga xam ni nga wax. ñaan lu rek. mo desoon ci loolu nu tal rek nga ñaanal lu mbak li nga wax ci diggante serigne bi. muy serigne Touba. ci sunu kilifa. diggante sëriñ barak serigne Fallu. ya nu ci gëna yey ya ci sunu kilifa. kër gi nga nek di kër serigne Abo. se kër maga. se kër nga ñew kon ba tey yaanu gën a yey ci kër gi nun ñi fi nekk ñëpp sa njaboot lañu kon Mbacke kaddu yu rafet yi nga wax soo ko yëkkatee jëme ko ci njaboot gii nga jaboote suñ noppee ni cell ña fekkiwul wax ku ne mën nga koo jànge nu la neex te adduna bi jaxasoo waaye Mbacke ñu ngi lay tontu di la nuyu di la wax alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di nuyu sa kilifa seigne muntaha Basiru di ñaan waaye yàlla na fi yag te wér lii nga and ak mom diko liggey pas-pas bi mu la ci serel mom seigne muntaha ak ñi nga àndal liggey ñep nañ ko nañ jël nuyo bi teg si kilifa sëñ Abo Baraka mu si amoon Fadal moom it lam seqoon ak nun borom kër gi nun de noo ko doxul nun war a doxee waaye sëriñ Abo Baraka moom la mu war a def lépp def na ko li nga wax ci doomi sëñ Tuubaa yi dañuy ñenn bokk lañ doon bokk lañ doon seeni mbir man du ma ci dugg waaye Cheikh Modou Fadal siiw na siiw na leer na ni wax dëgg yàlla xaritu benn bakkanub sëñ Baara la woon moom mag mu ko jege nee na ma lii ñu wax tey Sambara Kousé nga xam ne xewutoon muy néegu biir si luy sëg sëñ Baara yeggoon na ci jamonoom na salle d'attente am salle am Sambara Kousé waaye bis gis nañ biir néegu biiram sëriñ eh, lal mulu ko tey de xaw ma léegi mi hmm, ngi si àll ah, ne mi ngi nuyu bokki taalibe yi fekk népp di nuyu bokki jullit yi yëpp nee am mbégte mu rëy. ci teewaay bi ñu teew ci su bisub sunu mag sunu lépp muy sëriñ Abo Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Amin Baara moom Cheikhul Khadim ne fekk fi taawam bii ko fi nekkal di sëriñ Abdoul Aziz nee na ak bokkam yii nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ Touba yëpp ñëw toog ci wetam ne di nuy njabootu Cheikh Mouhamadul Amin Baara gi yëpp di leen nuy turu sëriñ Abul Baraka xalifa Cheikh Mouhamadul Fadal ak mbooleem njabootu sëriñ Falilou Mbakke gépp ne ci teewaayu doomi sëriñam muy sëriñ Habiballahi moom Cheikh Mamadou Fadal nga xam ne moo yore euh, euh, mu am solo moom mii ñu tuddee Touba ca ne di ko ñaanal nag ci barkeb sëriñ Fallilu mu jëm ca kanam rek ci barkeb maamam Cheikhul Khadim barkeb waajuram Cheikh Mamadou Fadal barkeb Cheikh Mamadou Lamine Baara nee na sëriñ Abdoul Aziz dañoo ñëwoon tey jii nag di sàkku si ñaan ne sëñ Muntaxa waaw mu ne ci turu Seex ne ñu ngi koy ñaanal it mu fi loolu ko wér ndax kenn ku nekk xam na ne ne Sëriñ Tuubaa rek ko ñor ne ba mu toogee ba léegi wóotewul benn yoon jëme ci boppam Sëriñ Tuubaa rek la ñu joxoñ ne waaye da koo royee ca magam yu baax ya fi nekkoon ak way juram yu baax ya fi nekkoon ne sëriñ bi rek a fi nekk leneen dafee nekkul ñëpp xam nañ ne Sëriñ Tuubaa ñor na ko lool liggéey yii mu sumb yal na yegg ak jàmm ba yeneen yeneen ak yeneen yeneen topp ci yegg lépp nu ànd koog moom daa waxoon ne ku dem danaa dem ku demul dana dem ñu ne ko ñun de Mbàkke fas nañu yéen a ak yow rek foo geesoo gis nu ci sa gannaaw ndax xam nañ ne fii nga nu jëmee ci sëñ Tuubaa rek nga ñu jëmee ci sëñ Tuubaa rek nga ñu jëmee sëñ Tuubaa nga ñu jëlee ci sëñ Tuubaa nga ñu jëmee nee loolu rek nag mooy li nekk te moo am solo kon nag sëriñ Abdoul Aziz dañoo ñëw ngir nga ñaanal ñu ci barkeb sëriñ Abul Barak barkeb sa maam yàlla ñoo ngi ñaan yàlla yàggal la fi lool may la it fan wu gudd lool ci barkeb sa sa barkeb baay ba nekk ci yow loo ñaan it mu am ca làmmiñam woowee nga xam ne sama borom defoon na ko ci moom ne kon nag ñaanal nu nag kon ci loolu dañoo bëgg a gudd fan lool ak njabootu sëriñ Tuubaa gi yëpp ak taalibi yëpp ak bokk yi yëpp bëgg na noo gudd fan bëgg na noo am kattan bëgg na noo mucc bëgg na noo am xaalis bu ñu liggéeyee la sëriñ Touba ba fu sëriñ bi wootee ci liggéeyam rek ñu mën ko cee defal lépp luy bëggam yoonu murit moom ñax ak ñuqi rek a ko yor buñ la laajee nga ñuqi joxe buñ la ci liggéeyloo nga liggéey ci ba ñaq yooyu yaar rek la am amul leneen kon nag soonu ñaanalee ci sa barke bay jur woowu daan ko man incha allahu taala dégg nañ lool nuyu nañ sa bokk yi ñu fekk yëpp ndax guy mbind moom day noonu ni ñoom rek genn kër gee mooy sëñ fallu rek kon nag lii am nañ ci mbégte mu rëy nëgën dee nu bokk teewaat nii nu teewee rek kenn bañ cee manqué agat yu bari ci kanam yàlla barkeel njaboot gi barkeel taalibe yi taalibe yi kat ñoo fi nekk leneen nekku fi ndax lu nu am rek ci taalibe yi rek la bay ko kon nag nan fonk taalibe yi di leen ñaanal yàlla di leen toppatoo bañ leen a sàggane rek ndax ñoom rek ñooy alali kon nag wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. fi ñu kaddu jëmale ko sama bi. Abibu sama baay bi. kilifaam sunu kilifa nu ñep aksi Cheikh Momadou murtada kon. da neexoon gëna neex. serigne Abibu limu wax. loolu rekk la sëñ Mourtada wax waaye comme ñoo ko sañ comme yéen a ko sañ nag te tudd ngeen ko ñi sañul ñun ñi sañul rafet njort li ngeen wax lépp ci mucc ci am ci am ci wér ci wér ci liggéeyal sëñ bi ci bañ koo génn ci loolu daal rafet nañ ci njort ndax seen way wa dégg naa man ci Serigne Abo Madiyana ci ndaw ndaw ci lu ma fekke de yombul nag may wax di ko tudd bariwut it ndax li ma dund ak moom ci xàmmee ñetti at la waaye ñetti at yooyu ñetti at yi ndaw di toll ci jàng la woon di xam kon loo dégg da ko mën a jàpp déggoon naa Cheikh Abou Madiyana mu ni wilaay ak Serigne Fallu ñaar la gën a gaaw làmmiñ wi ak loxo yi ak loolu nag <laughs> comme tudd ngeen loolu yu baax yëpp liñ bëgg lépp la ci gën a ñor te ma gën koo ragal sama dund muy génn sëriñ bi mu génn mukk sëñ bi ne doo ko génn duñ ko génn duñ ko génn comme tudd nga sëñ Murtada tàmbale ci sëñ bi yem ci bi man doy na ma sëkk donga yi nag tudd nga xaalis bëgg nañ ko rafet nañ njort ni danañ ko am tudd nga mucc danañ ko am sëriñ Abo ne woon na fal Fallu wilaayam am na ci ñaar yoo xam ne benn bi ci catul la bi ñu da ca loxo ya benn ba loxo ya luñ seqoon la ñoom ñaar baag si fa mu wax loola loola nag du waxi mbooloo loolaa cay waxi mbooloo lañ seqoon lañ seqoon baag si foofa lii ma ci wax mooy waxi mbooloo ca loola waaw nun ñi kër gi waaw fan tolloo noog sëriñ Abibu menn mag mu jege woon sëriñ Baara menn mag mu jege woon sëriñ Baara bàyyi sëriñ Jóob mën ndaag bàyyi doomam day nekk sëriñ Baara ñetti weer la ko sëñ Baara mage ko ñetti weer. ñu ànd ànd bu yàgg. ñu ànd bu yàgg. mu jàngoon mu jàngoon. nekkoon borom xam-xam. amoon na tax taxis ci muy ah. naa jagle muy jiiteel julli yi sëriñ Abo ci Touba Yëmbal. ginnaaw sëriñ bi mu fedd lu kóllëre di doxal loolee. mas naa koo laaj ci. yu bari yu bari. ci sëriñ Baara. mag mu ragaloon yàlla léeg mu ne ah lii da dañuy wax rek waaye lum la ni dëgg la dëgg la nee na ma loolu moo ko fekke sëriñ Falilou la sëriñ Baara ma sa ci biir Sambara Kuseen ba mu génneet mag ña laaj nañ lii day musuñ cee teg bët koo dugg ak sa biir néeg bi musuñu koo gis mësuñu koo gis mu ni leen kii day fa koy gis ku ma fa gis du ma la teg fa ma teg waaw lii daal man Baye Serigne Diop moom ko nettali kon doomi Serigne Touba nag man de damay ragal sax di wax mag ak dama naan ki jiitoo ka ci topp rek wala ka jëkk ka ca topp dañoo bokkul ak ñi dañoo seet ci liggéeyu sëriñ bi xeemeem ko ñaan yàlla yàlla may leen ñu jaar ci sëriñ bi bokk ci sëriñ bi liggéeyal sëriñ Tuubaa waaye ku dund kenn ci ñoom xam ci kenn xam ni du ñuy doomu ci misaal sëriñ Fallu li ci nettali doy na ci misaal waaye li sëriñ Abibu wax léegi. ne fone luñ fa gajje luñ fa gajje moo garab gu ne loo fa gajjee fay jebbewaat seen jataay bii Mbàkke firndeel na lool baax gi doon dégg sëñ Fallu fekki wuñ ko yéen ñi nu gis firndeel leen nu baaxam googee sama benn xarit ma saago wax ne ko sëriñ Fallu ku yomboroy la daa def lu bari luñ mën a roy. am ñu koy roy nag ci yeneen. waaye boobu yombul. bu dee wilaaya ga ah, ñàkk am du gàcc. waaye. yi si Amadou Fadal def te ñu ko tam firnde wu ñu mën roy lu bari la. te rek nag la ci jublu woon. ba ma ci wax rek. ba ciy wax rek. ñooñu buñ ko déggee dañ ko xam. ñooñu buñ ko déggee xam. ñi xam taarix ba dañ ko xam. ñi xam taarix ba dinañ xam li ma wax. am na mag mu abal toolam. fii ci dëkk bi. ñu dem ba dëkk ba àgg ca tool ñu dem ba dëkk mag ma di ko dagg di def ay kër. di ko dimbali ko. <laughs> am mag mu ñëw ne ko. am mag mu ñëw ne ko. sëriñ Fallou. sëriñ Fallou. sëriñ diw ma nga abaloon sa tool ba. sëriñ diw ma abaloon sa tool ba. ma ngi koy dagg di maye. aka jaay. mu ni woon leen ma ko. may may la may may la. lebal leb la leb leb la. abal abal la da ko abaloon. maa ma ñëw maa ngi ma ñëw. dégg naa tool ba mu ne ko dégg naa tool ba. ba ma abaloon la abaloon. yaa ngi koy dagg di maye ak a jaay ak a loo ci jublu maa ma ni maa ngi ma ni cel. mu ne ko xam naa la nga ci jublu sa njort moo rafet ci man ni boo ko defee dara du la ci fekk moo tax nga def ko may naa la ko loolu ma ne sa koo rey jërëjëf ah, ah, jërëjëf waa sëñ bi jërëjëf jërëjëf Mbàkke nun sa Abibu ñu ngi ñaan Serigne am Serigne Falilu mi day sama day sama cër tam bari cër doom Serigne Abou Sono amin waaw ah, waaw ah, xam ah, iya ya, ko waaw waaw moom waaw moom day sama cër day sama cër moom Cheikh Mourtada di soppeem ñu bari di sama soppe yor kaddu Serigne Fallou yor ya. kaddu Serigne Fallou ya. lu rafetal ko rafetal ko baaxu Serigne Fallou googu ak woyefam googu na ci moom jërëjëf Serigne Abibou it xam naa jotaay bi xam naa jotaay bi ah, waaw xam naa daa xaw ma ñu ngi xool ñu ngi yi waaye lii muy liggéey li ngay liggéey yow Serigne Abibou boo ñëwee fi tamit jàll faaw ñu wax ci yàlla na la ci yàlla may ndam muy sëñ Touba ca kanam nee na fii la sosoo woon alhamdulilah sëñ Sidi ko joxoon ndigal li fi la sosoo woon kon mu ngoog jërëjëf dañoo seq lool juñ na ko léegi bokkoon kokki ca koo xam ca dara mu baaxoon mu màggee day gën a baax fa mettee woon bu fa baaxee mu gën a baax jërëjëf Mbàkke waaw Cheikh Murtada Mbàkke ami nangu leen ñaan lu ngeen nekk nañ ko yëg amiin mënuñ lépp waaye luñ mën rek ngeen woo denc ñëw amiin amiin Cheikh Mamadou Mourtada ay ay bisa ngi bam ba ma tàmbalee soññeeg léegi kon ay bis gi yëpp mi ngi may mi ngi may naan nee na nee na ay bis yëpp Seydi Abdourahmane Mbacké mii toog moom Serigne Cheikh Gaynde Fatma dimanche ne tey jii la ko tàmbale woon naan ma bu dimanche nee na dimanche ba léegi mi may soññi naan ma mm. bu dimanche dañuy dem ca màggalu sëñ Abooga. dañuy dem ca màggalu sëñ Abooga. démb ma nga woon ca Mbambilor. démb sëñ bi sëñ bi dafa ma nga woon Mbambilor. waaye daa waaye daa fanaan si. xëy foofa ndax foofa kat sama màggal mënu ma caa ñàkk. nee na a dem. ndax kama fay fekk yi kama fay fekk baayam dafa jàppoon ci loxoom teg ko ci sama loxo baayam daa jàppoon ci loxoom teg ko samay loxo looloo tax loolee nag la ñuy doxal ba nee na loolee la ñuy doxal ba léegi te mel na ni jàpp na ko kii seen daal si muy jàpp na ko ndax nee na ndax nee na tabaski gune lam koy yónnee. tabaski gune la ko sëñ Abdou Aziz di yónnee. leen kenn kenn mëntu faa indi teraanga junni toll. kenn mëntu ko indi teraanga junni toll. loolee nag dafa am lu tax mu di ko. loolu am na lu tax mu di ko wax. yéene ji tax mu di ko def nag. yéene ji xam na ko xam na ko. waaye du loo xam ne des koy mën a wax. loo xam ne di wax rajo mbaa muy rajo waxum pénc. waaye nag. waaye. bokk gi moom. bokk na ko. xam na ko kii itam nee na ca ca Cheikh Moustapha la woon. nee na ca Cheikh Moustapha la woon. gan waxuma seen ñaari maam ya sax lañ bokk. waxul ñaari maam ya la ñu bokk Cheikh Moustapha ci moom dafa dafa sasu dafa xamoon waajuru kii mhm. def ko def ko def yoral ko boppam dëgg ko doomi boppam ndeysaan loolee nag moo waral ñoom seen diggante bi mhm. dellu si waat mel nii rek dëgg la mhm. loolu nag la ñuy jéem a dundal saa su ne bu soobee yàlla yàlla nañ ko yàgg def amiin yàgg mu yàgg fee ñëw yàgg la fee fekk ngeen def ko ay at barke si sëñ Touba seen maam bi siril maayida فابلا عودا وقير فائدا اشكر شكرا لو عقولي ولا زالوا دور وغولي اشكر ربي على ما خادا انا القديم شيخنا فانقادا دفعن بيسترين بدي ما جانجلو خساج جي بتي بي اشكر ربي على ما خادا انا القديم شيخنا فانقادا mu ne ma màggat ma ne ko mbakki mu ne ma xam nga sama maam sëñ baar lu ma foofu ma ne tekk di ko déglu mu ne ma day sant sunu borom ci jaarale gi mu ko jaarale ci cheikhul xadim cheikh ahmadou bamba xaalimul mustafa ba mu ñëw fii fi daal dunya màggat ma ne ko mbakki mu ne ma saa boo ko jàngatee ba toll ci bayit boobu na nga taxaw leeral bayit boobu doog a jàll نزل الأنام يا بني ما تجي شلاما بحرمة الهدي شوي الماهي أفوز بالصلاح والفلاح شلا هل ربنا على الدام وليجعل بالمراد والمرام يا ربنا بزورة الأنعام ما لا نحب جل في الانصراف ونجب القدوس والسلام جميعنا من موجب الملام هل النبي صاحب الوسيلة أدم صلاة تاب الفديرة وعلي أهل الفلاح والرشاد لنا أمراض من خير نصاب يا ربنا بصورة الأنفال كفى جميع الشر النيال قنا سابك إلى يسدنا وفي القيامة من يا ربنا بشارة توبة تملينا وسخلان salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di siyaar mbokku jullit yi mbokku ñëpp di siyaar képp rek koo xam ma ngi naan an laa ilaaha illa ashadu muhammad rasulullah ngi lay siyaar di la màggal leen jox seen wàcc waaye si màggalu Cheikh Abo Midiane bi ñu nekk nga xam ne Cheikh Aziz Abo moo ko tuddee màggalu baatin ndax jox cër kilifa yu mag yi ndax nu mu jege màggalu daaru moxti moo tax du ko nangoo sax yëgle te màggalu daaru muxti weesuwul bu màggalu daaru muxti weesoo rek ci liñ koy commencé yëgle moo tax ñu tuddee ko màggalu baatin di sant ñëpp di sant Baye Fall yëpp di sant si waa commencé si waa si daayira Sirel bi nga xam ne moo coiffé kull ku jokk si suñu asi abo bi nga xam ne moo fi toogal si abo Midiana ñun Baye Fall ñu ngi leen di sant ndax ñun lan dénk waañ bi su Moussa mu ngi nii ah jëwrin Cheikh Diagne mu ngi fële ah ak jëwrin Basugu ah ak jëwrin yëpp Baye Malick Ndiaye mooy suñu jëwrin ñun ñëpp ñun nag danoo fér si waa Dawam Sukkari teewal fii ñëpp nag waa yëmbal ñu ngi fi waa Dakar waa Ndar ñëpp a ngi fi jaayante ñëw ndax bis ndax sëñ aboo dañ ko mën a fay ndax ñun jamonte wuñu ak moom mais Serigne Aziz Abo daf ñoo nambatal ba nga xam ne dafa nduróog ni tey jii nii nii nii ñun xam nañ seen xam nañ Serigne aboo Médiana waaw xam nañ day nduróog ni dund dund nañoo moom dem nañ ba mu ñu Serigne Abo Médiana seen maam la waaw ñun ñun suñ Serigne Abo suñu maam la kon moom suñu baay la ndax moo ñu tàggat ba ñuy lu ay xale yu ndaw nan ñi nga am ay vingt ans dix-huit ans ba fii nii ku nekk am na soxna ba am tu tànk xam nga ba yor njaboot te lépp moom la da nga koy ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam yéen bi yàlla na oyof fu mu bëgg egg yàlla na fa egg yàlla bu mu am benn gàllankoor yàlla mu am benn ndog ba lu mu yéene si yoonu lislaam bii ak yoonu Serigne Touba ak yoonu ak yoonu maamam bi yoonu Sëñ Baara yàlla na ko suñu borom eggale di siyaar bu baax a baax di bëgge ñëpp na waa Doomu Sukuri démb dañoo jaayante am xew yi mais yëpp yëpp yëpp yëpp dañ kaa mottali ñëw fii si waañ bi nii nelawul sax waaw am nañu jiitu barki démb la ñëw si kër di defar ñuy ñëw bërki démb defar baas yi orne bi ñun démb si deux heures du matin lañ egsi ba jusqu'à présent nelawuñu ndax rek bëgg rek waa jëpp kontaan ñëpp gan yaa ngi fi waa Touba ngi ñëpp génn waa Touba na amuñu seen fay ndax moom chaque année dañuy teel a ñëw jàpp si togg yi ñu ngi nii di durus wàcce kaamil yi ñoom bu ñu waxee kaamil yi sax ñun sax dañuy yéemu waa dañuy yéemu macha allah macha allah ñu ngi leen sant di bu baax waa Touba TV ah ak euh, rajo yëpp média yëpp ak waa Lamp Fall ñëpp ñooñu moom chaque année da leen di gis fii waaw muy waa Touba TV ak ak wala ba ak ak nag bépp journaliste boo xam ne mu ngi Sénégal ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm alhamdulilah rabi alamin jërëjëf Serigne Touba. bisimilah rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla di julli ci yonente bu tedd bi di sant Serigne Touba di sant sëriñ Baara di sant Serigne Abo Madiane mi nga xam ne moo waral bis bi ndax moom 81 la fi jóge sëñ Abdou Aziz taawam bu baax bi toog ci xilaafa gi ñu ànd ak moom liggéey bi nekk ak moom fii ci kër gi la ñu bàyyam defoon ba tey nu ko raw la ñu def Mbàkke ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla mu sut bàyyam ba fanta de sa barke ba jooyuñu dara namuñu dara doon sa baay jafe doon sa baay jafe na waaye doon sa baay moo jafe sëñ sa Abdou Aziz dafa matale lépp macha allah bi mu fi toogee ba tey jooyuñu dara xiifuñu maruñu waañ wi mu tegoon suñu loxo ba léegi ñu ngi ci waañ wi manqué wul dara manqué wul bi ñu xëyee rey nañu juróomi nag jënd nañu fukki xar jënd nañu 200 ginaar pour reer yi te màggalu la rek yendu rek lañ ko def waaye sëñ Abdou Aziz Mbacké bëggul dara manqué fi kon nag ba mu commencé ba léegi danaan bu dara manqué bu dara manqué bu dara manqué nañu berndeel gan yi Cheikhouna Abo berndeel gan yi ndax sa màggalu baay la jox ko ndigal ci loolu kon nag ñu ngi koy ñaanal musul bàyyam ba fan te dese barke ba suñu xol sedd na guy man soxna maam Sey Gueye nekk fi si waañ wi bi ma tegee ba tey déplacé wu ma kon nag Mbàkke dama koy ñaanal rek mu yàgg sama kanam te sut baayeem ba fan te dese barke bi sama xol sedd na guy jërëjëf Mbàkke yéen yéen waa télévision bi fi ñëw nag di Touba TV ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndax boobu ba tey yéen a ngi ci màggal gi di def ay plateau bi ñu génnee di wax lu baax ci sëñ Abo te ñun amuñu dul sëñ Abo ku jàpp sëñ Abo ñu jàpp la te boobu ba tey bi màggal gi tàmbalee ba tey sonnu leen tàyyiwu leen kon dañ leen li ñaanal seen télé nekk ay télé télé télé télé si barke sëñ Abo Mbacke borom bis borom bis bi nag na ko ndax wàllu yu kamaan la woon wàllu yu kamaan la woon kenn werantewul wàllu yoom da daan def di dindi kon nag barkeem yal na wàcc si njabootam ci barke sëñ Baara Mbacke soxna Jami taawam mi ngi wee sa biir deful dindiwul du lu jël lépp teg ko suñu loxo Mbacke lu mu bëgg rek lu ñu bëgg rek mu ne def leen loolu na baax rek bàllay sa buri dañ koy ñaanal rek mun si baayam ba fan te de sa barke ba ñoo ngi sant yàlla bu di sant sëñ Baara Mbacke suñu sëriñ nag sëñ Aziz Abo di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan wér mu sol ko ci cat ak ndok ay magam ak rakkam tubaat fokaal la di ñaan sunu màggal gii yàlla nañ ko def ay màggali màggali màggal yàlla bu ko kenn wuute di ñaanal kër gi di ñaanal ñëpp bàyyiwuñu kenn ñoo ngi ñaanal seen Aziz ak i magam ak i rakkam yal na leen yàlla defal jàmm ñu yàgg len fa fekk ñu yàgg ñoo jiite yéen waa télé bi nag ñu ngi leen di ñaanal yal na ngeen yokk ba yëkk te yàgg ñëw at mu ne duñu fekk jërëjëf. Ah, auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw bi ñu sante suñu borom bi subhanahu wa taala ñu ngi julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba bu baax a baax a baax a baax di feddali suñu kóllëre tamit ak yéen. di leen wax ni yéen tamit yàgg ngeen fee teew yàlla nañ ko yàlla may ñu fi yàgg a teew ci màggalu Cheikh Abou Madiyana Mbacke gi di jox nuyoo bi nag suñu wasila muy Cheikh Abdoul Aziz Abou Madiyana Mbacke son yóbbu di ko ñaanal mu wér lool ànd ak ay magam ak rakkam ñu tamit ñu yàgg ko fekke teewe ko ba bu ñëwee rek ñu def ci li ñu mën di ñaan yàlla mu yàgg lool ba suñu sët di ko def ci barke Cheikhouna Khadim waaw ndax <laughs> du man li may wax rek sëñ bi la sëñ bi ci boppam moom moo toll noonu moom lu mu laal moo gën lu mu laalul ndax man bi may attaaya maa ngi commencé ci lu ndaw baraada bu ndaw léegi nag may dem bay attaaya ay saaku suukar ak lu topp ak mënuñu ko lim daal ndax sëñ Touba amul tànk ginnaaw te ku ko lebal ker mu fay la guddi sëñ bee toll noonu ñun duñ ci dara dañuy ñaan rek mu gën a yokk ci barke Cheikh naa bismilaahi mina seytaani rajiim bi ñu sante yàlla sant yonent bi ñu ngi sant sëriñ Touba di sant sëñ Aziz di sant sëriñ Baara sant sëñ Abo Madiana sant sëñ Aziz Abo ñu ngi sant bu baax ndax ba yàlla boole waat ñu ren ñu fekkee màggalu sëñ Abo ndax lépp sëñ Abo la ñun ñëpp ñi ngi sant ndax moo ñu defar bu ñu nekkee ci mbooloo bu ñu tuddee sëñ aboo ñu new ñu bu ñu nekkee doole ji ñu am yëpp sëñ aboo lañ koy sante sañu sang bii fi ne nag sa Aziz xam li ñuy jar bëgguñu yëg ñu di ñu vérifier di ñu seet di seet suñuy mbokk jëwriñ yi ñëw nañu xale yi ñëw nañu ñuy ñaan yàlla lii ñu nekkee yal nañu yàlla yokk yokk suñu njaboot jëwriñ bu fi ne yal ko yàlla yokk ba njabootam ñëw tey di tere sañ aboo ñii fi nekk di suñuy rak waa kër Cheikh Toune waa kër Mamadou Gadiaga ñoom Pape Sène Mor Gueye Badara ñëpp a ngi fi Modou Mané mu baax mi ñëpp a ngi fi di sant sëñ na Mbacké ñoom soxna Jami soxna Mambar ñoom ñëpp soxna Jaan ñoom ñëpp kon dañu ngi leen di sant yal na yàlla yokk yokk lépp màggal gën a yokku te bu déwénee fekk fi ñëpp ci barke sëñ Baara ak xéewal yi bari ba ñu gën a mën a def ndax sa Aziz jar na ko ñu ngi sant sëñ Tuubaa bu baax jërëjëf yow tamit ngay suñu doom nit ko baax nga yal na gën a yokk taxawaay bi yokku liggéey bi ba nga gën ko yëg ci bat sëñ Baara jërëjëf